natu Buzz SNTV yéen ñi safoo di seetaan suñu chaîne bi dal leen ak jàmm si seen actu du jour tey nag dañuy door xibaar yi dooree ko ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi Fatoumata Ndiaye euh, Fouta Tampi ginnaaw bi nga xamante ne nii doomam bii nii di wuyoo si turu Thiaba jënd na def ay révélation yu doy doy waar kii nag di yaayam di faatu Fatoumata njaay Fouta Tampi wax ci li nga xamante ne nii moo di mbir mi te Fatoumata njaay Fouta Tampi wax na ci ay révélation yu doy waar wallaay yu triste yoo xamante ne nii kii di Fatoumata Ndiaye Fouta di yaayam wax na ko gars yi déglu leen ma bu baax a baax a baax kii nag di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi weddi na li nga xamante ne nii kii di doomam bii di Jaba waxoon na ko Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ma ngay xamle ni kii ni di Jaba dafa nekk xale boo xamante ne nii xale bu dëgër bopp xale boo xamante ne nii bëggul baax bëggul lu baax te lu bon la choisir moo tax kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi di yaayam bàyyi ko comme que dafa dëgër bopp day dëgëranteeg bopp ak moom kii di Fatoumata njaay Fouta Tampi nee na kii di doomam bii nii di caba kaay baax caba ne ko man bugguma baax léegi kii nii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi daal di koy bàyyi daal di koy bàyyi si lu ko neex dem defi ko neex boo leen dégloo li nga xamante ne nii moo di audio bi kii di caba ma ngay jéem a tontu kii nii di yaayam mais kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi du ko moy du ko may fa nga xamante ne nii fa lay waxee parce que kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi nee na man ay doomi jàmbur rek laa yor waxantuma laak nag sama doom kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ma ngay xamle ni kii di Thiaba mooy taawam Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi yëkkati ay kàddu yu triste ma ngay xamle ni moom ay doomu jàmbur rek lay yor maanaam taawam doomam boo xamante ne ni moo ko jur carrément ëmb ko neuf mois ak ëmb ni mu méttee kan mooy jur doomam di ko bàyyi di ko bàyyi muy dem loolu xanaa dof yi sax defuñ ko kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ma ngay xam le ni doomam ji nii di caba bëggul lu baax lu bon rek la bëgg te kii di di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ma ngay xam le ni doom bi nga xamante ne nii caba jur na ko kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ba doomam ji di caba di wasin da ko maanaam topp ba keroog muy wasin maanaam toppatoo ko ba keroog muy wasin te kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ma ngay ñaan lenn rek doomam bii nii di caba maanaam bu fekkee mënul téye doomam bii nii nga xamante ne ni mooy ndey ñu ko ndey ñu ko nag doomu kii la caba Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ma nga koy ñaan mu jox ko ko rek mu téye ko parce que kii nii di caba euh, bëggul baax bëggul lu bon kooku loolu nag Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mooy wax ba tey comme na ko jox mu téye doomam doomam ji nii rek maanaam téye ko téye ko bu baax kii nag di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi moo yëkkati kàddu yu doy waar yooyee teg ko ci kaw doomam bii nii di Thiaba ginaaw bi nga xamante ne nii Thiaba ma ngay wër réseaux yi di waxal yaayam bii nii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi jéene na wax ci li nga xamante ne nii moo di mbir mi bu ñu jugee foofu dem ci coowal kii nga xamante ne nii moo di Adji Adji saar mi nag ginnaaw bi nga xamante ne nii nag ma ngay jénn rek di def ay révélation naan yor naa ay vidéo yor naa nangam nangam kii di Adamo Boss des Negri nekk fële ci Europe jénn na daal di dévoiler ay audio yoo xamante ne nii kii di Adji Sarr moo ko wax te audio yoo xamante ne nii nag audio yu doy waar la ginnaaw bi nga xamante ne nii Adamo jénn na ko Adamo ma xam xamle ni kii di Adji Sarr ay fen de am harmonie maanaam kii di Adji Sarr dafa mënul li nga xamante ne nii moo di fen dañ koy waxloo dañ koy fenloo mais kii di Adji Sarr mënul wax moo tax ñu ko doon encadré kii nag Adamo ginnaaw bi nga xamante ne nii teg na li nga xamante ne nii moo di audio yi Adji Sarr ma ngay xamle ni Gabriel kan ak kii nga xamante ne nii moo di Koura Macky ak kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bokk nañ ci li nga xamante ne nii moo di complot bi parce que ñoom dañuy xeex li nga ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko mu sell mi comme ni ko ñëpp di waxee maanaam ñoom ñëpp bokkoon nañ ci complot bi pour daaneel ki nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko mais la ñuy wax dara du sa dëgg kii nag di moo xamle noonu moo xamle loolu kii di Adji Sarr mais audio yi nag kenn jëndewu ko. kudul dul nii di Adamo Poste des Negri moom mi nga xamante ne nii xamee wuñ ko lenn lu dul topp kaa di dévoilé loo xamante ne nii yoonam nekku si aji Adamo nag jëne na audio yooyee xam le ni kii di Adji saar la muy wax dara du sa dëgg ma ngay xam le ni kii di Adji saar nag mënul dem procès ak kii di Ousmane Sonko parce que kii di Adji Sarr la muy wax dara du sa dëgg te bu fekkoon sax la muy wax dëgg la euh, ki euh, du nekk fii nii di fen di fen rek di génn di def ay révélation mais la muy wax dara du sa dëgg bu ñu jugee foofu dem ci continuer ci kii nga xamante ne nii moo di Adamo Adamo nag am na problème ak kii nga xamante ne nii moo di ñaaxarañ loo ñaaxarañ loo nag ginnaaw bi nga xamante ne nii demoon na sa Bercy bële Bercy boo xamante ne nii kii di Youssou Ndour nekk chanteur nekk le roi du mbalax moo ko organisé woon ca Bercy boobee nak kii di ñaaxarañ loo dafa demoon ba kii di may jeey fay doon ko gaaruwaale naan buñ la invité wul lu yàqu yow a léegi nag ñi nga xamante ne nii moo ki nga xamante ne nii moo di aadamoo jénn di attaque ki nga xamante ne nii moo di ñaaxarañ loo ndax la mbay jeey fay wax kii di aadamoo ma ngay xam le ni nag euh, mbay jeey fay lam la wax dëgg la parce que invité wuñ la kon lu fa yàqu yow la ña nga koy gaaruwaale ak ki nga xamante ne nii moo di Boucher Ketchup kii nag di ñaa xarañ loo ginnaaw bi nga xamante ne nii nag invité nañ ko fële ca ITV e ñaa ah, xarañ loo wax na ci lool nga xamante ne nii kii di Adamo yëkkati na ko kii nag di ñaa xarañ loo bañ ko waxee ci Adamo nanguwul addu ci kii nga xamante ne nii moo di Adamo kii nag di ñaa xarañ loo ma ngay xamle ni moom du moroomu kii nga xamante ne nii moo di Adamo du moroomam parce que nekk na nit koo xamante ne nii du nit ku baax ca lañ ko xamee du lu baax ti kii di ma ngay xam ne ni man sama liggéey laa tal di liggéey ñu may fay di dem si ay organisation ay événement di liggéey ñu may fay di encaisser sama xaalis mais talluma li nga xamante ne nii moo di ay coow kii nag di ñaa xarañ loo xam ne ni du moroomu Adamo te du wax ci li nga xamante ne nii moo di mbir moomee ma ngay xam ne ni kii di Adamo du idole du royukaay fii nii ci Sénégal bu ñu jugee foofu nag dem ci kii nga xamante ne nii moo di Viviane Chidid Viviane Chidid nag ginnaaw bi nga xamante ne nii dem na fale ci Los Angeles maanaam di waajal li nga xamante ne nii moo di showam bii nii nga xamante ne nii war na koo amal fële ci Los Angeles gis nañ kii di Viviane daal di def benn vidéo di wane li nga xamante ne nii moo di li nga xamante musique gu Sénégal maanaam ci chanteuse yu Sénégal yi maanaam kii di Viviane ma ngay wane showbiz bi fii nii ci Sénégal nam waree kii nag di Viviane ma ngay xam le ni moom tamit chanteuse la boo xamante ne nii gars yi ña nga koy bëggee kii nag di euh, Viviane ma ngay wane ni moom mannequin la ma ngay nga xamante ne Los Angeles di waajal li nga xamante ne nii moo di Badiane Badiane nag nekk ko xamante ne nii xam nañ ko lool fii nii ci Sénégal ràññee nañu ko lool fii nii ci Sénégal ginnaaw bi nga xamante ne nii moom mii di Badiane ma ngay toj li nga xamante ne nii moo di concert wali sek yi ki nag di Badiane kii di Wally Seck diggoon na ko li nga xamante ne nii moo di oto mais ginnaaw bi nga xamante ne nii kii di Wally Balago Seck dig na ko oto boobee kii nag di bàjjen jot na li nga xamante ne nii moo di oto bi nga xamante ne nii Wally Seck diggoon na ko ko kii nag di bàjjen ma ngay kontaan lool ma ngay am contentement si Wally Seck ginnaaw bi nga xamante ne nii Wally lam ko diggoon jox na ko ko kii nag di bàjjen ma nga ma gisati muy saaga wala muy attaqué wala di wax lu ñaaw ci kii nga xamante nii moo di Wally Balago Seck ma ngay tagg Wally Balago Seck naan ka borom xoru jamaa ba koy attaqué man dinaa jënd dal ci kooku nga xamante ne mooy attaqué kii nga xamante ne nii moo di Waly que ma nga xam ne ni kii di Waly Balago Seck nit ku la ba kii di Waly Balago Seck nag jënd na jëndel na kii nga xamante ne nii moo di bàjjen li nga xamante ne nii moo di son maanaam kuy laal sama bàjjen ñëpp xam nañ ko fii nii ci Sénégal maanaam bàjjen moomu noonu moom moom son boobee ginnaaw bi nga xamante ne nii Waly Balago sek ma ngay def ay tournée am tournée internationale am ña ngi si doon gis kii nii nga xamante ne nii moo di bàjjen bàjjen mi nag moo toj li nga xamante ne nii moo di concert yooyee ba kii di Wally Ballago Seck daal di koy jëndeel li nga xamante ne nii moo di son maanaam kuy laal sama bàjjen boobu noonu ngeen di dégg kii nag di Wally Ballago Seck moo ko jëndeel kii nga xamante ne nii moo di bàjjen nekk koo xamante ne nii ñu ngi koy ràññee lool fii nii ci Sénégal ginnaaw bi nga xamante ne nii nag ma ngay si ay série mais tamit lu ñu ko gën a xamee maanaam concert yi nga xamante ne nii Waly gu Seck ma nga koy tëgg kii nag di bàjjen ci loolu noonu lañ ko gën a xamee kii nag di bàjjen ma ngay remercier bu baax a baax a baax kii di bala gu Seck di ko sant bu baax a baax a baax ba pare tamit teg si li nga xamante ne nii moo di mbirum politique bi kii nag di Ousmane Sonko nekk leader boo xamante ne nii leader Pastef moom mi nag di Ousmane Sonko tey ma nga fële nga xamante ne nii moo di Mbacké Mbacké tey fa lay wëyalee li nga xamante ne nii moo di euh, caravane bi ba pare day dugg fi nga xamante ne nii moo di Diourbel kii nag di Ousmane Sonko jamono ji ma nga fële ca Mbacké di def li nga xamante ne nii moo di caravane mais kii nag di xaman kii nga nag nga xamante ne nii moo di xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké yar radiyallahu taala ma ngay ñaan nag euh, élection yi nga xamante ne ni moom la ñuy jub si jàmm am jàmm bu dara xew nañu ko def ci jàmm jënd ci jàmm kii nag di xalif général des mourides mooy ñaan loolee kii di Serigne Mountakha Mbacké mooy ñaan jàmm ñu def élection yi ci jàmm jënd ci jàmm parce que loo gis loo gis day jeex ki nag di Serigne Mountakha Mbacké mooy ñaan loolee ñu dugg ci élection yi dem ci élection yi jën ci élection yi ak jàmm parce que ma ngay xam ne ni loo gis day jeex fii ci àdduna nguuru yàlla rek moo dul jeex kon nag ma ngay ñaan njekk élection yi nañ ca dem ca jàmm jënd sa sa jàmm ba beneen yoon